monsieur le président. maa ngi nuyu sama collègue député yi di nuyu monsieur le ministre garde des Sceaux ak ministre du travail ak ñi mu àndal. monsieur le ministre tey dañu ñëw fii nga indil ñu benn projet boo xam ni mooy loi numéro 03 2024 le 2 février 2024 yaakaar naa loi bi muy ñëw fii ci taabalu assemblée nationale. ancien régime bi fi nekkoon muy Macky Sall moo ko fi yónnee woon monsieur le ministre muy loi boo xam ni depuis booba léegi am na ñu ko jot a am am na ñu ko jot a càmbar am na ñoo xam ne sax gisuñu ko ndax ñu woon loi bi parce que ñu ngi woon ci ay élection monsieur le ministre muy loi boo xam ni dafay ñëw di modifier loo xamante ni moo nekkoon. lu ñu fi defoon muy commission Sénégal de droit de l'homme tey ñu indi benn loi boo xam ne mooy def commission nationale de droit de l'homme boo jëlee article 22 ci règlement bi ci dernier alinéa bi moom ci lay abrosé li nga xamante ni mooy loi bu njëkk bi monsieur le ministre garde des Sceaux en tant que kilifa diine en tant que doomu daara droit de l'homme mooy lan monsieur le ministre gis nañ ci loi bi ñu wax ci loi bi ne organisation protection de droit de l'homme organisation protection de droit des femmes organisation protection droit des enfants organisation protection droit de handicap mais ana nu suuf la si lan mooy ñu protester ñun monsieur le ministre foofu laay sukkandiku jàll ci jëf ju ñaaw ji nga xamante ni ak wax ju ñaaw ji fi am fan yi te ku ñuy wax Omar Diagne yëkkate woon ko jëme ko ci kilifa diine yi monsieur le ministre garde so Sceaux bii ci ginnaaw Maam Diop président assemblée nationale photo Serigne Touba Khadim la jamono Senghor ba léegi mi ngi fi booy dugg assemblée photo bi la tiim sëñ Touba la kooku su mag ñu baax ñi fi nekk kenn wër leen a yab may laaj ba xam le président la république dafa gën a foor fort c'est Ahmadou Bamba wala Alaaji Malick bëgg nañ ci ay réponse parce que ku tooñ président de la république doo fanaan sa kër te ku tooñ Sëñ Tuubaa yendu sa kër loolu bëgg nañ si tamit nga leeral ñu si parce que monsieur le ministre ñun diine ñu gën a lépp bu ma bokkee si benn tariixa Sëriñ Tuubaa liggéey fi loo xam ne li mu liggéey ñëpp xam na ne tey mooy jàmmi réew mi ji Malick si liggéey loo xamante ñëpp xam nañ ko tey benn taxaw nii boo demee jumaay Touba ji si ñu franc moo fa nekk lu ñaaw la te dégguma benn yoon état bi condamné li nga xamante ne mooy jëf jooju noonu ñun nag loo nekk nekk suñu xarit muy gouvernement bees bi sëñ Touba moo ñu gënal gouvernement li ñu am mooy cër bi ñu sëñ Touba jox du jeex te moom la ñuy défendre à tout moment li Omar Diagne wax naqar na yoonu murit naqar na tijaan yi naqar na islaam naqar na sénégalais yëpp kon monsieur ministre ci kàddu waa Touba en tant que député de Touba en tant que fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mi nga xamante ni soxna fajjam yi taaw moo jur sama waajuru jigéen maam mook sama waajuru góor ñoo bokk benn waajuru jigéen muy Serigne Abdou Dia maa ngi demandé ci turu waa Touba Cheikh Omar Diagne ñu dindi ko fi mu nekk parce que méritowul fi mu nekk loolu nag yóbbante la boo xam ni nanga ko àgg njiitu réew mi ba xam moom day jël Cheikh Omar Diagne jënd ko ay millions de personnes waa wala déet kooku subaa mooy prendre ay responsable parce que fi ñu jëm ëllëg jàpp ñaañu bu ko Sénégal yi wooteelu diine yi wooteelu ko li mu bëgg si ensemble nu ko amaat. di la yóbban jël ak yóbbante yoo xam ne maa ngi ko jëlee ci fu ñuy wax Foundiougne monsieur le ministre comme yaa fi toogal gouvernement bi Foundiougne dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ne bëgg na nga àggale ko gouvernement bi mooy département bi nga xam amul stade am na fa benn port boo xam ne depuis 2014 lañ ko inauguré ba léegi doxul Foundiougne mooy dëkk bi nga xamante nii hôtel ba fa nekkoon di indi yi sax dafa tëj. Foundiougne ndaw ña fa nekk amuñu liggéey jigéen ña fa nekk amuñu ay formation ak ay financement amuñu aussi ñi nga xamante ni mooy sax ay frigo yoo xamante ne fay man a euh, def si nga xam mooy seen produit en tout cas di sant si ax mu bàmba di gërëm Serigne Touba di ñaan mu Mountakha mu yàggu te wér te xam ni Touba si kanam Tiwaawan si kanam Laayaan si kanam Ceneba si kanam Njaasaan si kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp si wér ma jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah merci Adji Diarra Mergane, vous avez la parole.